ab tukkikat laa ma jóge Italie le vingt huit juillet ñëw Sénégal bon bi ma egsee ca période tabaski gi ban tabaski ba pare ma war a retourner le dix septembre diggante bi nag sama passeport jeex na fi ma di dem Kaolack di ko déposé ji jour bi na xamee ne ci laa ko mujj seet mooy jour bi ma demee di war a dem Kaolack laa ubbi sama sac di jël carte d'identité bi xool séjour bi ak passeport bu jeex bi ak yeneen ñaar passeport yi jeex yi ba gis séjour bi bàyyi kaf ca kër ga dem Kaolack ba yàlla dogal bi ma jotaatee passeport bu bees bi ba indiwaat ko dugal ko ci fi passeport yooyu nekk ubbiwuma passe séjour ba xool ko at passeport ba ba xam ma fa am déet bàyyiwuma ci attention. diggante boobu diiran boobu ba ni ma war a retourner le 10 septembre xëy di defar bagage ba ci yàgg sama xel mi ne yar ci séjour bi mën a xaaral ma génne ko ci fi mu ne ci passeport boobu war koo boole passeport bu bees bi. pour compagner ko te passeport bu bees bi ci fii passeport boobu fii séjour bi nekkoon fa nekkoon vérifier sama sac xool xool xool gisuma ko yére yi ma doon sol ñu xool ko gisuñu ko ñaari jabar nag laa yor Sénégal ci sama kër kenn ki bi may door a ñëw fanaan naa seen kër cinq parce que kër yi sorewuñu ci même famille lan kenn ki moo ne ci kër gi ci laaj sama sœur bi na ko man sama séjour de laa gisut fekk moom fanaanu ci kër gi ma woo ko téléphone moom su ndax kër yi sorewuñu ba tey mu jóge këram ñëw ci kër gi ñu koy seet gisuma ko mu soog a woo sama jabar bi ci biir kër gi ki ma fanaanoo ci kër gi ndax kenn kii jour boobu aayewu fi fanaanu fa ki nekk ci kër gi moom moo fanaan ci ci néeg bi laajuma ko it wax dëgg yàlla ba tey sama séer bi laaj ko na ko kii de séjour am lay seet moom mu ne ma sama séer bi na ko mu ne sama séer bi luy séjour ne mosuma leen a won samay papier mosuma leen a sama séjour wax dëgg yàlla mosuma leen koo won mu ne ko ah ma da xaw ma luy séjour nu mu mel man dugaluma sama waxit ca biir wax ja ñu koy wër automatiquement ma daldi di woo benn sëriñ mu liste xaaramal na ko na ma li nay wër kayit bi nay wër te gàllankoor yoon bi day mi ci loxo jigéen mi benn am ku ma woo fii kuy seet pettaaw ñoo bokk dëkk jurbel ba tey moo xoolal ma ko ci pettaaw ndax kooku tamit damay seetal wax di yàlla di ma wax yu bari yoo xam ne na dama koy gis buñ ko aayee tamit bi ko seetee na day li lay séjour bi nay wër day sa kayit yi mu ci loxo jigéen mais laajte ndànk mais ñaar ñu toogaat di wër di laajte ma woo leen ñoom ñaar ñëpp wooy kana xam ne moo moo doon aayowut ci kër gi sorewu na ma woo ko téléphone mu ñëw bi ñëwee ma laaj ko ko mun ne ma mu xamu ko gisu ko ma ne ko sama saag ubbi leen ko jël ko mun ne ma gisu ko ma laaj keneen ki mu ne ma gisuma ko parce que bëgguma woon a di gaaw akisi ñu wër ma toogaat pendant ay dix minutes woowaat keneen ñu tegtal nga ñu woo ko mu lës xaar ko na ma min ci loxo jigéen génnu kër gi affaire bi nag commencé ma jaaxal mi ñett ñoo xam ne bokkuñu gun fu ne am kun ma wooyle mu ñëw ci kër gi seet ko na ma mi ci kër gi de jour boobu ci li gàttal fukki nit ak ñaar seet nan ko ma ma ma ma toog laaj sama jabari rakk bi nga xam ne ñoo bokk kër mu ñëw ñu ko ko wax parce toute la journée ba ci ngoon gi moom dugg ci kër gi bi ñu ñëwee na ko lan ko ko laaj na ko ndax gisoo xale yi foor ko fenn wala na for ko yow denc ko mu ne gisu ko moom comme ñoom ñett ñoo seq kër gi. sama jabar rakk nag moom dëkku ci kër gi. kër jëkkëram la nekk mais jëkkëram maan moom ñoo bokk ndey baay ñaari kër yi ñoo taqaloo mais buntu sarare lañ ci kër gi mais nag buntu sarare bi dañ koo kiit mais ci giri biir yi duñ jóg ci kër gi daal exemple duñ jóg ci kër gi ñoom ñett nag la wax ne mënut a génn ci ñoom xaw ma nag nun jële wax dëgg yàlla moo alam ma dem naa ci sëriñ demati ci sëriñ ñàkk naa ci xaalis avant may ñëw ba yàlla dogal dellusiwaat naa. diira boobaal léegi nag siisu bi nekk na ci sama xol loolu rek moo ma jaaxal di ñaan tamit képp koo xam ne tukkikat nga. boo déggee sama wax nana moytu lu bari parce que jamono ji ci boppam moo jaxasoo moo doy waar. ku ci yor passeport italien passeport foo ko mën a yore nationalité boo ci man di yor wala ni yor carte séjour say pièces soo te xamal fan koy teg lii man maa la ko wax. parce que lu ma dund la lu ma dund la boo dellusiwaatee Sénégal xamal fan ay teg say kayit xamal fan a koy dee. kii ma def lii at lu ci jublu ndax bëgg a xam kii ma def lii at lu ci jublu at li tax mu def lii.